waaw pël foofu coow amu fa jotaayu mbër noonu lay mel ah il faut gars yi comprendre loolu du ay coow du ay dara ah. mais jotaayu mbër noonu lay mel faaw des fois mu xaw a nekk jotaayu doole. des fois mu doon jotaayu bruit affaire yooyu loolu mënu see ñàkk. mais li ci gënoon important ba gën ci important mooy kan moo ñu invité woon ak kooku mooy kan. seetaan naa discours guy gi seetaan naa ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne génn nañu wax mais liñ siy wax te duñ si sori rek mooy. wallaahi wal azim man kenn yoruma kenn yorul sama dépasse yàlla rek laa yaakaar bu ma déggoon guy gi wax ci lenn loo xamante ne amul bu ma toogee fii dama leen wax guy gi li wax ci discours bi dara amu ci li ma seetaan mais wax dëgg yàlla li ma ko dégg lu mu wax yëpp lu am la mais nag dafa am yoo xam ne amul njariñ jarul di toppaat ci ay détails di wax ndax nettali xuloo xuloo la guy gi nit ku baax la wax dëgg yàlla mosuñu toog mosuñu fréquenté à part ñu dajee Amérique mais nit ku baax la parce que def nañ ko fa yu bëri yoo xamante ne nii ci man lay xool bàyyi parce que day wax ma ne ko sa waay mu ne maa ma ne ko doo def lii defal lii ak lii ak lii ak lii ak lii te ko neexoon ne booy bi du ma mais daf may fekk ci def li mu wax may seedeel Sénégalais yi rek ne li ma ko seetaan mu wax ci télé bi yëpp lu am la yee ñu koy wax tamit ne moom moo war a muñ parce que mooy ni ma ko waxee woon Amérique rek yow doo mobile doo ñi nga bëgg a guy gi amul loo xamante ne nii man fekkee naa ko Amérique mu def ko luñ ko mën a xeebee. waaw mooy li rek loolu du problème mu mbëri wala footballeur yi wala lii wala laa affaire doomu aadama la doomu aadama mooy yar boppam ndax dafa am benn wax bu moo di wax mooy kaas bu nekk bu bënnee di senn li nga ci def rek lay senn man fi mu ne nii fii li ma ci bëgg a wax rek laa ci mën a wax kenn mënuma wax loo leneen loo xamante ni nekkul ci man wala dara mais am na loo xamante ni nag faaw mu egg si média bi pour mu faju mais man dama jàpp ne média yi nii nii nii nii maanaam lancé wukaay message la ñoo xamante ne mënoo wër ñëpp pour wax ak ñoom mais nekkul xuloowukaay loolu tamit dama ciy lancé sama yenn mbokk yi nga xamante ne dañoo yor site internet nga xamante ne leer na leen ne bu ñu demee jëli Balla Gaye ñemewuñu kaa laaj question bi leer na leen bu ñu jëlee Modou Lo duñ ko ko laaj leer na leen leen ne bu ñu ñëwee ci mobile 2 mënuñu koo dugal ci wax yi nii mais faaw ñu dem jëli benn nit koo xam ne waxkatul ëpp la nga jël ko te li nga koy jël ci semaine bi doo ko jël mbër muy wax si làmb lu am njëriñ te yow da taxaw nga ne da ngaa bëgg làmb jëm kanam da bëgg nit ñi bañ a xeeb làmb te bëri na si ñoo xamante ne nii ci àdduna yàkkamtiwuñ lu dul nitu làmb wax lu lu ñu ngay xeebee yàkkamtiwuñ lu dul ñuy dégg ci làmb détail bu amul njëriñ mais lan moo tax nga gis ngeen gis si dëkk bi fii ñoo xamante ne ci làmb la ñuy wax te li ñu ciy wax day am njëriñ li ñu ciy wax kii mbër mun na koo jëriñoo ku dul mbër mun na koo jëriñoo mais da nga naan ah kii bëggul neexul ci liñ nekk ñun dañoo bëgg kuy wax loo xam ne buzz lay doon ñoom lu ñu dagg di dugal TikTok ñoom lu ñu dagg di dugal ci estat yi da ngay dem jëli koo xam ne boo ko waxee mu taal kii guerre nga wax mu mu taal kay guerre kooku moo leen gënal dem jëli nit ñu correct loolu li ci ëpp ci xeex bi yéen la parce que fii li ñu fiy wax yëpp bu leen neexee bu ngeen yeggee seen bureau xool ci ne mobile fii daa ngeen dagg ko bañ koo dugal mais bu ma fi waxul lu ëpp moom li ci am njëriñ mun ngeen ko sax teggi dugal lee parce que lee la ñuy vi lee la ñuy commentaire di saaga kon li ci ëpp mun na nekk ci man mi koy wax mais man mi koy wax fan laa ko lancé la moo tax kooku jàllale ko parce que man pël boo ñëwoon ci man saaga ku mel ne deene wala Galaay ñu waxtaan nga wax ma ci Galaay lu baax lépp wax ma ñaari jikko yoo xam ne ci Galaay bu ko Galaay déggee mer mais bu ma yeggee wax ko lu baax li ma wax ci moom jikko yi nga xam ne wax nga ma ko ci moom te bu ma ko waxee mu meral jar mun naa cee bañ a yegg mooy comme lii rek. maanaam bëri na ñuy wax ci làmb li ñuy wax ci làmb boo ko déggee xeeb làmb xeeb kuy xëy ci làmb am na wala amul bëri na ñoo xam ne ñi ngi wax ci làmb li ñuy wax ci làmb boo ko déggee xeeb ñi parce que da ngay jàpp ne est esprit nit ak tur bi kii turam fi mu yegg est nii la war a waxtaane est lii muy wax nii lii la war a wax quoi day mel na nga romb benn nit ci tali bi nga dégg ko micro mu wax lu ko neex est-ce que kooku ak tey mobile wala tey du ne sax mobile ndax mobile du fi lenn est a yem ak xam ne turam foo ko bindee ko parce tamit fii àdduna la lii internet la man li ma ciy wax xooluma ci man mii toog xooluma si ñii ma koy waxal mais damaa xam ne am naa soxna am naa doom te ëllëg lii internet la à vie la day toog ñu ne ko sa papa moo fi waxoon lii parce que tey Fallaye Balde tey da ngay tàppe ay discours ci net bi gis ko da nga fiy tàppe yu mbéygee gis ko Fallaye bu fi waxoon lu ñu koy xeebee amaa Balde du génn si xool xool moromam loolu la ñuy bàyyi xel mais du ay nit ñuy nii parce que bu dee ñun ak ñun mun nañ gérer suñu bopp mun naa def lu ma wax neexul nit ñi ku génn di wax man la man la neex maa ko wax mais ëllëg est-ce que sama doom day romb day naan sama papa moom la neex est sama yaay day romb ñu ne kii mooy mooy jur xale bi waxoon barki démb lii ci internet bi. waaw ah, mais moom it dégg nañu comme li Paul wax ci laay ñëw ah euh, coowu Las Vegas bi bari na. mais ku ci mel ni liiru jaan mën nañ ko cité danaan na mobile seede mhm. kon fekkee woon na mhm. ku ci mel ni guy gi day wax mhm. même chose Abdou Diouf da koy wax te yéen a fa nekkandoo woon ñi nga nekkaloon ñëpp yaa leen mag mais dañuy wax ni toujours mobile mooy seede <laughs> kon tey yow yaa waaw yow yow yow yow yaay leeral voilà xam nga tey ñëpp ko fa mag mais mobile la ñuy seedeloo kon sa nekkin wala dara beneen bi mooy coowu jëf jël ak ama neex ñu ne mobile 2 moo ko andi ndax moom la jëf jël doon seeti est-ce que bi muy dem xam nga ni jëf jël dafa am ak problème moo gën wala da defoon espérer pour jëf jël ñoo fa pour coow li am ñu xam comme ci yow la loolu amee bi ñoom liiru jaan mën nga cee seetal mais jëf jël ak ama neex mobile 2 la ndax jëf jël ama neex mobile ñoo taxawoon ci biir hôtel bi bi leen moo géet woowee ngeen dugg ci biir bi ama neex di génn xamoon nga ni tension lay uti jàppoo ko wala xamoo woon ni loolu lay génn loolu mooy am su génnee ci loolu lañ bëgg leerlu ci loolu waaw mooy li nga wax problème mu liiru jaan guy gi li Abdou Diouf nii ak nii man liiru jaan laa njëkk a xam ko guy gi parce que liiru jaan moo ma yar moo ko Abdou Diouf man Ikri Waalo laa débuté may nekk xale bu ndaw laa fa nekk ñooñu laa gën a xam ko guy gi nee naa la man li may dundee maa koy liggéey guy gi mun naa am événement ba événement mooy tax ñu bëkkante wala keneen ak keneen ak keneen liiru jaan dañuy faral di déggante man a moom WhatsApp nee naa la nettali xuloo xuloo la te bari na détails yoo xamante ne nii man àdduna jaralu ma ma ciy dox mais dama ne la sëriñ Touba rek laa gëm gawuma kuy dox ci àdduna billaahi wallaahi wa guy gi deful Amérique lu ko nit di xeebee waxuma kenn def na ko fa waxul Amérique lu nit di dégg di jàpp sa gémmiñ foofu laa yem àdduna amul solo te nettali xuloo xulool te damay wax ne suñu dem Amérique yaakaar naa important bi gënoon na bari ka ñu toog di wax kii ak kii xuloo nañ kee kee jote nañ kee kee jote nañ parce que dañoo jóg dem Amérique coow li bari woon loolu suñu ginnaaw ku ci nekk lan moo leen yëkkati kan moo leen yóbbu ak lan moo leen yóbbu yaakaar naa bi ñu ñëwoon loolu moo doon ëppal sénégalais yi ñu wax leen ki ñu yóbbu woon mooy kan ak lan la ñu yóbbu woon ak lu mu ñu doon doyee maa ngi dégg tamit ngay wax ci problème mu jëf-jël ama neex affaire yu demee noonu wax naa la ko sànq sama biir wax ma ne la jotaayu mbër mënul ñàkk loolu jëf-jël sama xarit la depuis Sénégal man moom histoire moo tax ñu xamante dafa nekkoon dafa nekkoon parcelle ma doon dégg ayib jëf jël kenn ñemewul ñëw parcelle fekk ko fa tëkku ko wala lii wala laa moom tamit muy dégg ci loolu moo wil grand yëf ma ne kii bis bu ñu dajee parcelle ma ne moom laa mu jooj du yegg yàlla def man ak moom ñu bëre ci biir bëre boobu noonu ñu jóge fa jàppante man ak moom fasante kóllëre mu nekk sama xarit vraiment ñuy déggante ci yu bari heure bu ma ñëwee Amérique day jàpp ci samay affaires yu baree baree baree baree bari baree jëf jël ak moo gét amuñu problème nañ bàyyi di wax loolu jëf amul ak kenn problème ndax moom góor yàlla la jëf jël Baay moo gën amul ak nit kuy dund problème ndax moo gën xol bi dara nekku ci ba muy jàppal nit problème yee nañ bàyyi di wax loolu loolu ay détails la àdduna amul solo. jëf jël mais coow bi coow bi. jëf jël jëf jël. Mhm. coow nañ fa te mobile 2. moo tax jëf jël ñëw ci hôtel bi. déggoo ma ne la foofu coow amu fa. jotaayu mbër la noonu lay mel jëf sama xarit la jëf jël sama xarit la amul lu muy jàppal kenn moo gën amul lu muy jàppal jëf jël wala lii wala laa parce que xol bi loolu nekku ci te bu ma ko gisoon ci moom nii laa koy waxee. man dem naa Amérique te moo géet yóbbuwuma fa bu ma demoon ci moo géet gis fa benn sikk ci moo géet wala mu doon nit koo xam ne nii damay ñëw taxoon ne leen moo ku lii la mobile moo gën xeexul ak jëf jël te jëf ci li mu wax nee na moo xam neex weccante nañu ay coup hmm. te yow yaa taxoon mu ñëw fa hmm. parce que wax na ba wax ni hmm. am na valise bu la waroon jox waxuñu moo gën dafa am problème ak jëf jël neex ak jëf jël ñoo fa daje jote loolu lañ lay laaj waaw moo tax ma wax la ko loolu yow ñëwaat nga ci li ma la waxoon nee naa la jotaayu mbër noonu lay mel li ci ëpp doole moo ci kii jotaay mbër noonu lay doxee lu ci ëpp doole la ñuy gën di waxtaanee la ñuy gën di utiliser wala lii mais bu ñu dajawaatee nii la ñu mel jëf amul problème ak kenn jëf amul lu ko nit di defal mu la koy jàppal ci xolam. moom noonu la ko yàlla bindee. a neex noonu keneen ak keneen noonu moo géet bi nga xamante ne mooy nday mbili nga xam ne dañuy wax moo indi coow bi moo indi coow bi moo ci àddunaam coow la ci gën a bañ ci li ma xam ci moom coow la gën a bañ si àddunaam da wax mu ne la man rêvé naa leneen lu dul sénégalais di coow seen biir. li ma bëgg mooy sénégalais sénégalais fu mu nekk ci àdduna ñu xam ne kii mooy diw sénégalais fu mu nekk ci àdduna gën cee fas li ma bëgg mooy sénégalais raw ci àdduna bi mais kooku xamoon ne kon amul benn intérêt pour mu toog di fexe mobile coow ak kii wala mobile coow ak ke loolu du détail damay toog di dégg ay moo géet dafa war a kii fan la jëlee xaalisam fan la liyee fan la laayee fan la lee est-ce que loolu dinañu amal njëriñ quoi lenn nag mooñ ci amal njëriñ pour moo géet toog ci internet bi wax moom jaar-jaaram pour ñi nga xam ne amaguñ li mu am ñu jéem a xam ne kon ku tegu fii suñu borom mun na laa dimbalee nii parce que man tey damay toog di seetaan benn américain dégg minti milliardaire la may ñaan yàlla mel ne moom sénégalais nga dégg millionnaire la nga ne ah waaw moom moo moom kenkaari bi moom moom lii mais nga dégg sénégalais milliardaire la seede day bari xam nañ la xamuñu la parce que sénégalais warul am milliard te ñun ñi koy am ñoom ñi nga xam ne dañ leen naw muy tubaab wala muy leneen wala muy lii bu ñu doon topp ressource baax baax ñun ñoo leen ko gën le ci côté bépp kon lan moo tax waruñoo nekk milliardaire lan moo tax Sénégal ku nekk milliardaire sa der bi bari ay gàkk-gàkk problème bi lan la quoi ñun milliard mérité wuñ ko waruñu ko am léegi kon lan mooy problème lan moo tax ku nekk milliardaire ñu ne foo ko jëlee di seetaan américain bi naan kii moo ëpp xaalis monde bi doo lijjanti fu mu ko jëlee di ko seetaan ci tubaab di ko seetaan fépp hmm. bu waaw loolu mus naa ci wax. naa du jar ñu ci waxaat ak waxaat sax nee naa la ñun judduwuñ fekk lépp neex te man damay wax ne nit avant âge majeur mun nga koo dolli lu nekk ci boppam ba mu des bu demee ba xam-xàmmee mooy man damay wax ñaar rek la nit di amee jom damay judd fekk sama papa nekk milliardaire ma xam ne sama papa bu fooye woon ndawam du ma fi fekk lii mbaa ma judd fekk ma kër gi neex te mënumaa gëstu samay wa sama papa nan la nekkee woon fii tey ba ma fekk kër gi demee nii mu demee ñaar yooyu la nit di amee jom li ci ëpp njëriñ nag ba ëpp njëriñ mooy tey li tax ñun bu ñu gisee ku tawat wala ku demee neneen ñu siy dox yenn tànk yi mooy waxoon naa ko du jar nga ci jaar parce que bëri du bëri njëriñ lool mais wuñ fekk mu neex ñun judduwuñ di fekk suñu kër di samp saaku ceeb wala di fekk añ di tege reer di tege ndékki di tege xamuñu ko dañoo judd ba màgg rayanteel suñu bopp jaayante ko ba mun koo def kon jaar nañ foofu noonu nga xamante ne nii mooy méttit ñun nekk nañ nekk nañ xale boo ne sama yaay sama bopp day métti mu dem wuti garabu niim daggal la ci ay kii tegal la fii xobi yi jël musóor takk ci yàggu ñoo xam ne paracetamol day faj bopp yu métti te bi la sa yaay di jël ay xobu niim di ko teg sa bopp di ko takk ak lépp ñàkk lu mu la jëndalee garab ci pharmacie bi moo ko waral kon tey boo jaaree ci yooyu yëpp yaakaar naa dimbalewaate day yomb ci yow dimbalewaate day yomb léegi nag li ci am solo bu am solo mooy est-ce que tey Sénégal da ngaa war a gis nit feebar di am problème mu paasu taxi bi ko yóbbu hôpital ñu tàgge ko huit nga sangu sa kër neuf nga dem buntu këram fekk ñu yeew ñeenti nag kilifa yi ci réew mi yëpp du ñu yëg feebaru kenn mais dëj moom doo leen ko annoncé ñoo la fay jiitu yëguma woon feebar bi moom seen kàddu la moom mais dëj bi moom lu mu teel teel teel teel li nga leen fekk ñu gaare ko suñu pap booy bambara bi tabaski bi jege see man seeti naa ko man ak waa ëttu làmb ji ma leen nuyuwaale au passage doon ko yóbbul njëgu xaru tabaski waxtaan ak doomam bi nga xam ne moo ko yoroon lépp ci këram mais bi mu la expliqué man bi paa bi di gaañu maa ngi Amérique ñëwaguma Sénégal mais tey bu la doom ji expliqué da ngay jàpp ne est ce kii mooy booy bambara bi ñuy wax ne moo yor drapeau roi des kii mooy booy bambara bi ñu wax ne moo def lii ci làmb moo def lii ci làmb est ce que kii mooy booy bambara bi ñu wax ne politicien bu nekk jaar na ci loxoom pour mun a siiw tey booy bambara boobu moo gaañu dëj bu ko toll ne grand théâtre booy bambara boobu moo nelaw dëj bi war a tourné grand théâtre il faut ñu xoolaat booy Malika ñu ngi koy annoncé bal daa nekk ci biiram ñu war a génnee bal bi mu war a def opération opération bi ñu ne 6 millions CFA la 6 millions CFA la ci internet bi lañ ko wax amul ku ko yëgul dañ koy ñaanal suñu borom saafara ko mais bu wàccoon liggéey saaku ceeb bi day ëpp 6 millions waxuma la bu ñu naree jow ci gàtt yeeg yooyu est-ce que noonu la Sénégal war a doxee. man dama ne bëggumaa nekk milliardaire man mobile ku ko wax ñu ne bëggoo lu baax parce que ay milliards daa ëpp ci man lu ma koy doyee bu fekkee fu ma tëdd suturloo ak sama njaboot lu ma lekk lu ma naan ëpp matul milliard li ma sunu borom nar a jox ma koy nekk milliardaire na ko séddale ñu amul ne man mais est nit war naa mën a yor ay milliards dëkk ci goxam bu génnee këram ak bi ci toppaak bi ci toppaat ak yëpp añ lañ mën a assuré mënuñoo assuré reer Sénégal ngay dégg mille milliardaires boo demee seen dëkk yi ba tey teen la ñuy root ci ban réew lañ nekk léegi li fi xew mooy man aw ma yow amoo keneen amul nañuy ànd suñu biir ñooy mayante jabar ñooy tuddante doom ñooy demalante ay dëj doomi milliardaire doomi milliardaire lay takk ndax fii moom kenn dégg ko fi ñu annoncé la ñu baal ma ci tur yi may tudd doomu Youssou Ndour bi takk jabar fii nii Arafat wala bii takk jabar Grand Yoff wala lenn wala mooy takki jabar seen village seen cosaan doo ko dégg fi ñu dëkk lañuy ñuy takkantee jabar ndax da ngay génn sa kër jaaxaarloog ngeen takk léegi noonu la Sénégal war a doxee quoi ñi ñàkk rek ñooy ànd. pour phénomène boobu mun a jeex ci dëkk bi mooy li ma doon wax sànq te zaaru nit yi mel ne ay moogéet wala ay lii dañ leen war di encourager ci Sénégal te bañ di jël yenn gàkk-gàkk yi di ko teg ci seeni der parce man nee naa. ñuy wax moo géet dóorkat la yëpp am nañ ci droit mais man pour ma mënoon teg sama baaraam ci dóorkat bi ñuy wax mooy da may indil nit ne ma galaay mi moom moo géet mos nañ séeq lii moo géet dóor ko diw moo kii mos nañ séeq lii kii dóor ko mais dóorkat la li tax dóorkat la mooy dafa am xaalis bu bari te sénégalais la sénégalais warul am xaalis bu bari ñun noonu lañuy dunde dundee dóorkat la li mu am dafa bari waru koo am dóorkat la ñun noonu la ñuy dundee léegi tey ñu ëpp ñu bari le ne moom ñi ngi ci réew mi mais dañuy mujj toog seen ruq man toog naa Amérique billaay wallaay taalaay moo gét def ay social ci jumaa yi affaire yooyu noonu ci kër diine yi kilifa gu mag fii senegal kilifa gu mag woo ko ne ko ëppale wooñu li nga yor bu ñu yorul lu ko ëpp mais toogal nga xool sa fay ak sénégalais yi lan la téléphone direct moo ne ko ah mu ne waaw moo ne ko ok baax na lu ma ci fekk tamit ma xam ne loolu la ndax dama kaa def te yàlla tax moo bi mu la wax YouTube bi lépp ay saaga la ci fekk na wax fu muy jëlee xaalis na wax lii na wax laa na wax parce que lan moom sénégalais la li muy maye dafa bari sénégalais moom dañ lay limité li nga war a am mooy million bul ko weesu milliard pour nit ku xees la. moom ah, ngi lay delloo siyaar dañuy dem ba dañuy sonn sonn boo xamante ne seen mbokku mbër yi ñooy ñëw di leen wàllu seen adversaire hmm. bi mbër yi fay bi ñuy dagg lan la leen dañ koy décorer licence bi rek taf bu rafet la quoi. <laughs> taf bu ah, assuré wul dara kay pour décor la. boo blessé boobu la assuré. ah gis nga ne am na ku blessé ci làmb kay. assurance assuré wu ko kay kon kay décor la. day mel ne daa mel ne bii ci yére bi rek. <laughs> mais yéen bëri tamit jotul ngeen xoolaat seen toogaay li nga xam ne moo des si carrière bi loolu sax après làmb leneen parce que boo dee xool du pour yow il faut nit ñi xam loolu. milliardaire li ci réew mi munoo muusa kawaane muusa kawaane ba sa dépense su kër journée ëpp 100000. ndax kenn du fi añee giléem il faut ñu jël suñu xol yi nii suñu xol yi ñu xam ne nit lu dul sa wërsëg mënul jaar ci sa put gi te put du fatt fi ak borom li fi weer si àdduna jeexul mus naa taxaw dekki làmb ma ne leen tey chaque jour nit feebar ci làmb ji ñu génn jàppal fii xëccal kii wool kii wool kaa te pourtant y a 8000 licenciés bu ñu doon def weer bu nekk licence bu nekk mbër mu nekk 1000 francs lay natt mbër mu nekk 1000 francs bi ma ko waxee ñu ne ma ñun 8000 licence dañoo xam ñëpp man leen 8000 licence ñi leen yor watuñu 8000 ménageur jëlal kaye jox Max Mbargane ne ko bindal ma numéro téléphone mbër yi nga yor yëpp jël Abdoulaye jox keneen matuñ 10 ménageur nga dajale 8000 licences yëpp 8000 licences chaque weer ku ne 1000 francs 8 millions la chaque un an 96 millions la dinañ ketalati mbër booy un mois 8 millions la chaque un an 96 munoo dem ba di ci xool mbër moo xamante ne nii xam nga ne kii làmb neex ko moo ko ci boole mais xam nga ne munu cee sori ñu signé ak moom suñuy kayit yu leer nañ yëkkati suñu 7 millions nangam abal ko wala ñoo xam luñ ko mun abal mu dem di def leneen chaque weer muy ñëw di verse mbër yi temps dimbale woo ko mbër munta am combat dem ba ci biir préparation am jeexal tàkk dootul yor dara mu ñëw lépp mbu bi 10 millions ñu yëkkati ko al ko mu yeggali préparation am te pourtant muy dajal mu ngi ci bi mais soxlawul te dañuy liggéey. nañ la abal 10 millions boo paree boo ñuy fay nga fay suñu 10 millions 100000 ñu signé ko yow ci kayit du leer mais boo ko waxee dañuy wax kii benn booy la boo xam ne day ñëw ci groupe bi di imposer di jaay xam-xam bu bëree ak lii ak lii. man jànguma man école bi jamonoy sa a sa laa bàyyi jàng kon dama leen mën a jaay xam-xam bu bëri mais dëgg moo amul jàng ak ñàkk a jàng. ah man jàngu ma. Hmm? Gambie na Gambie hmm? am fulla rek parce que dañoo gis làmb mu nekk loo xamante ne ni luy dundal réew la te réew mi mu ëpp doole fonk ñu ko. ñoom ñu jël ko dundal ci seen réew Gambie ci une semaine fi mu ne nii nii nii nii bu ñu doon xool li mu raconté ci wàllu sport Sénégal raconté ko. yàlla ma yàlla baal yab ma waa championnat Sénégal waaye championnat Sénégal boo fa demee ay huit personnes ngay fekk benn paa bu toog fee yor soleil estaatam ak ku toog ne jaaykat café yi sax duñ dem ndax da ngay ñu ne doo fa jaay 300. làmb nekk Sénégal nga xam ne li ciy dund mbëru làmb ci gën a tuuti làmb nekk làmb rek mooy seul sport bu am Sénégal boo xamante ne ñii ñetti ministre dañ fee war a joxe si période Covid bi. ministre de la culture daa joxe ci làmb làmb da nga cee mën a dindi culture tëgg way fecc takkaay daw lagg. boo ko dindee ci culture lu ci des ministre de la fan la war a joxe fan la jeunesse bi nekk. na Macky Sall jaar nii Balla Gaye ak Ama Baldé ak Modou dem toog amitié ñu xool fan mooy fees fan la jeunesse bi jëm ministre des sports fan la war a joxe mais làmb gën a néew doole fii boo génnee nitu làmb muy wax sax dañ naan mooy yow da ngay seetaan bu fii nga puusaat seetaan parce que da ngay xam ne départ waxu làmb nit nuyoo la ci fin bi gërëm la si buy jeex nuyoo la. yomb na da ngay seetaan mu ne maa ngi nuyu diw nga puus mu ñëw ba fii wax la soxlaam bul yegg fii parce que fii day gërëm amuñu benn idée bu ñuy tegal nit ñi ñu xam ne lii moo war a am ci làmb pour lan mu tegu fan ñan ñooy nitu làmb jël làmb tënk ñu ne làmb ñu ne làmb waaw dañ koy def huis clos dañ koy def di teg loo xamante ne nii ñoom ñi la koy wax dañ la koy wax pour arnaque sa xel boo ko d'accordee lan lañ wax ñu ne làmb dañ koy def huis clos ñu baal ma léegi huis clos bi li ñu siy bañ mooy feebar dafa am ci réew mi te làmb bu mbëri indee supporter mbooloo bi dañuy daje ok loolu moo tax ñu koy def huis clos léegi man bu ma doon bëree ma yóbbu 20 car stade sama buntu kër am na 30 car yu fa des yoo ni ñàkk billet moo leen fa bàyyi nga def stade huis clos léegi 20 car ya doon dañuy obligé dellu si sama kër booleeg 30 car yi ma fa doon bàyyi dajaloo ci buntu kër gi kuy huis clos sama buntu kër doo am. ñu ne léegi làmb feebar bi bi mu fi amee Macky Sall laa seetaan télé direct mu ne nii da ngay raxasu nii la ñuy raxasoo wane ni ñu koy defee yëpp moo lay muccal ci feebar bi ne dangay takk max mu ne léegi mun nañu ubbi làmb ji waaye wii ku la kuy préparé làmb nu ñu koy préparé mbëri dañuy contact ak max ngay contacté wala contact ak nuyoo lu gën a gaaw nga tëj géej gi tëj saal yi ne ubbi nga làmb ji ñu préparé fan làmb ji. il faut que ñun mbër yi nga xam ne ñun la ñuy proposé yenn yi ñun la ministre bi di waxal wala ñun ñiñ teg ci kaw ministre bi di wax ak ñoom ñu am fullay bu leen ministre bi waxee lu xel nanguwul nga xamal ko ne lii bu ñu yeggee fii nan lay demee ñu ne dañuy bàyyi deux jours avant làmb mbër bi war a ñëw bëri si dañ koy testé léegi bu positifé dañuy aj làmb ji léegi bu positifé dañuy aj làmb ji promoteur bi nga xam ne xaalisam la yor di ko liggéeyee def ko ci làmb ji boo testé mbër mu positif mi war a dem quarantaine wala te te xaalisam boobu la war a liggéey promoteur muy def day toog xaar léegi mbër mi nga testé mu positif ñi ko doon jàppale contact yëpp da ngay jëli ñëpp dëkk yi mës a dem wuti sëriñ yëpp bu dee mbër mu amul oto ne man daan yéeg ci biis yi nañu proposé loo xamante ne ni xel da koy nangoo déglu ah nañu waxtaan ak ñun ci loo xam ne xel da koy nangoo dégg mais bu fekkee man dama toog ne noo ministre mooy wax non garaaw du ma ko sax siggi xool ci bët buy wax damay sëgg lu mu wax nga bës sem boo génnee dem ba sa kër toog ne da ngay def analyse dangay ngay am moom fulla gi mu am ba mun laa wax li mu bëgg nga am fayda ba mun ko cee wax li nga ko xalaat parce que noonu la àdduna di doxee mais bu fekkee réew mi fii dafa am dëgg boo xamante ne nii non bii pour galaay la galaay siit la yor non yii bii pour buur la buur moo ma yar est-ce que àdduna noonu la war a doxee raayante bi moo bari ba nga xamante ne nii pour nit ñi wax li nga xam ne moo leen jëriñ sax mooy lii ku la ne làmb mun na dox ci condition wu huis boo ko amul kersa ci moom ne ko waxoo ma lu mën a ne. huis clos mooy supporters yi duñ ñëw man bu ma dee promoteur financé sama 40 millions ci làmb état proposé ma huis clos état li mu mën a def mooy huis clos 40 millions laa financé daf ma koy jox. journée bii bu ma ko jaayoon normal làmb ji 10 millions lay génnee ci bee yi état bi léegi wi moo la proposé huis clos 10 millions doo ko mën a jot dañ lay jox 3 millions nga booleeg sa 40

télé laay waxee àdduna ñoo may seetaan ñu tëdd feebar noonu ku ma ci jot sa dossier tey bu lëndee moo gën dugalal la lay faj leer na. parce que loolu moo waral suñu ñibbi Sénégal ñun ñëwuñu Sénégal pour lenn parce que làmb amu fi te moom la ñuy liggéey kon mënoon nañ toog foofu ko ne ci liñ nekkoon. mais dafa toog chaque jour dañuy toog mu nekk YouTube bi di suivre di suivre di suivre di suivre ba ci yàgg mu ñëw woo ma ne ma mbër ma ne ko waaw mu ne ma. dem leen Sénégal yéen ñëpp maa ngi leen dagalaat bi ngeen dem Sénégal ngeen xoolal ma kaa yi nga xamante ne ni dañ kaa war a régler vite fait ñu regle kaa yooyu parce que situation bi métti na trop te pourtant mi ngi nekk ci internet bi di def lu baax moo da doon may xaalis ku mu dem yëkkati seeg jox la mu koy gis YouTube bi yëpp naan ay foo seeg lay joxe ñi mu jox yëpp mënuñoo retiré moo tax boo gisee dernière tournée yi mu def yëpp fi mu dem yëpp kaas lay joxe jël xaalis kaas di ko joxe. tek ci toog kaa yu yoonam ne